mais kees waa doon dafa mel ni waxtaan am na de yàgg naa am <laughs> moo tax réew mi kilifa yi ku dugg seen diggante yaa ngi <laughs> ay ku ci xeex ba ñu rey la. yaa perte. ku ci reyante wala ku ci dugg wala ku ci mel sa nit wala ku ci wax lu ñaaw wala kuñ ci xeeb yaa ko teg sa bopp. Sonko daal mooy jamaay jamaay Sonko. Sonko mooy Macky. waaw moo Jomaay Jomaay Sonko ñu ngi koy ñaanal. waaye Sonko mooy Macky. dégg nga ci boole. ah Sonko Macky. Ah, ah. xam nga ni Macky mii ak Sonko yàgg nañoo gisee. boo gisee ni toppee doxul. <laughs> waaw waaw. waaw loolu tamit <laughs> ah daal maa ngi ñaanal président Amadou Diomaye nan. Amadou Diomaye. Amadou Diomaye koy ñaanal. Diakhar yal na ko yàlla defal jàmm. yal na ko yàlla taxawu. amiin yàlla na ko yàlla defal sutura amiin ba li nga xam ne mooy mbéwétam ci Sénégal ba xam ne ni tey jii café wu ko retaane wu ko yàlla na ko réussir yàlla na réussir allahuma amiin yaa yàlla na réussir yàlla nga réussir ci barke amiin amiin jërëjëf yaa baax